loolu weesoo damay nuyu magu koñ bi nuyu bi dañ siy jiital parce que fi ñu nekk nii ñun dañoo nekk si diggante kër maam El ak Ngent koñ bi dañoo am boobu spécialité ñun dañoo nekk si digg bi kon donc bu ñuy nuyu magu koñ bi dañ fiy jiital la xalif général sëñ Miniru Njëgeen ñu ngi koy ziyaar bu baax ñu ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi ba si kanam yàlla na yàlla yokk ay fanam bu loolu weesoo dañuy nuyu magu koñ bi mooy paa yi fi nekk di paa yu baax yu bëgg nit je pense que ni man loolu tuuti naa si di ko wax parce que ñu nekk si koñ bi xam nañ ko bu loolu weesoo aussi dañuy nuyu jigéenu koñ bi vraiment ñi dëkk fii ñi dëkk ba kër maam El ñoom ñëpp gis naa leen gis naa seen taxawaay maa ngi leen di remercier xale yi ñu ngi leen di remercier bu loolu weesoo aussi dañuy defal mention spéciale euh, ajaaru gi yàlla na ko yàlla def moom mënuma wax moom yéen a gën a xam lii tey bu am ba nii taxawee ginnaaw yàlla grace à moom parce que moo njëkk a ñëw ne ma maas damaa xalaat lii il faut ñu def ko ci koñ bi parce que xale yi am na ñoo xam ni fête dina jot peut-être duñu am ay cadeau nañu def lu ñu mën ndànk-ndànk petit à petit ñuy dem di kii bi mu ko waxee hésité wu ma dama ne ko initiative bi initiative gënu ko rafet boobu ba léegi mi ngi fi te yaramam sax xaw na sutante mais forcé na pour ñëw kon loolu day wane engagement am Rougui ñi ngi lay sant bu baax au nom tamit de l' association des femmes ñi ngi sant femmes yëpp yi bokk ci groupement boobu ñu nekk ci remerciement yi ci waa koñ bi fi ma koy terminer mooy les jeunes yéen a leen gis man pratiquement defuma fi dara nekkuma fi woon à un moment demoon naa fi mission bi ma ñëwee mardi damaa demaat Dakar tey maa ngi fi egg si ay midi 13 kon donc lépp lu ngeen gis mu am fii muy organisation les jeunes ñoo ko def les jeunes fii di ànd fekk seen jeunes xale góor yi ñoom papi yow ñoom xalifa ñoom ñëpp ak ñoom papis kuy vraiment man awma seen fay parce que ñu gis ma gisuñu ma nekk nañ ci te aussi parfois sax ñoom ñoo may corriger te parfois dañuy meroog man wax ma ñu ma waxan ñu waxante wax ju dëgër ñu corrigente samay raq lañ mais man damay nangu di discuter ak ñoom dañ may corriger aussi en même temps man dama leen di corriger kon donc am nañ benn benn affinité boo xam ni ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yokk ko bu loolu weesoo balaa may sànni ay kaddu da ngeen may may aussi ma remercier ñoo xam ni damay ànd ak ñoom si beneen terrain mooy ñi may àndal di politique dégg ngeen am na ñu jóge si département bi ay Kayar am na ku jóge woon mbuur ak ñi jóge commune Thiès Nord tey ñi ngeen di dégg ñëpp ñu doon ay responsable nekk commune Thiès noor à l'exception de deux ku si nekk ñëw na wala yónnee na vraiment ñooñu kon awma seen fay ñëw nañ taxawuma taxaw bu rafet vous tous maa ngi leen di remercier maa ngi leen di sant bu baax vraiment awma seen fay les aussi ñoom tamit yàlla dafa ñoom ñu jiital ma kon donc Abdou Fall tey moo wax si turu jeunes yi moom wax na lépp aussi dafa am fu may terminer muy sama diggante ak Thierno Alassane Sall làqatuwuma ci nëbatuwuma ci yàlla moo def ma bëggal ko sama bopp moom mu bëggal ma boppam ñu ànd di liggéey di collaborer collaboration bu sincère Thierno Sall man personnellement aw ma fayam maanaam li tax aw ma fayam bi may doog a génn jàng il faut que parfois tamit ngay leeral di wax nit ñi xam ñi ngay nekkal xam bi may doog génn noo année bi ma war a soutenir sama jàng yàlla dafa defoon mu hospitalisé woon. six heures du matin la Thierno Alassane dugg si hôpital bi six heures du matin man damaa tiit sax taxaw ma fu mu ko yëgee kooku loolu nit ku la yëg rek moo la ko mën a def bi ma demee ba jàng ba jeexal toll si wutum liggéey la def benn entreprise privée bu ñu naan CDE recruté ma bi ma CDE recruté. moom mu woo ma téléphone ne ma ministère des infrastructures dañuy recruter ay ingénieurs Macky Sall dafa waroon a recruter vingt et mu ni ma déposer sa dossier ne ma wutaaleel ñeneen ñetti ingénieurs yu dëkk Thiès nga indil ma seeni dossier jamono jooju nag moo tax ma naan xale après naa ñëw si yéen da ngeen a war a jàng bi loolu amee may wër biir Thiès pour trouver. ay ingénieur mu jafe woon ma lool mais suñ borom mi dara tawul dimbali nañu bañ gis si ñetti ingénieur yooyu ak man moom Thierno Sall moo leen dugal fonction publique bi ñuy dugg fonction publique maanaam dafa am privé privé li muy fay si xaalis fonction publique du ko fay maanaam salaire privé day duuble salaire fonction publique mais nit l'honneur ne se refuse pas ma waxtaan seeg sam papa muy kilifa mu ni ma comme moom moo am yéene bi woo ba jox la ko bu gestu bu xalaat bu ragal gis nga bi ma ko joxee man li ma doon rêvé bi may jàng pour nekk fa suñ boroom damaa dimbali ma dem fa muy Ageroute fi ma nekk tey kon kooku fallait que ma leeral suñu diggante. man nag moom laay politigal xawma beneen responsable politique yoruma keneen numéroom naa seq ak ñëpp jàmm naa leen nuyu mais lu jëm si politique du ma wax lenn lu dul mbirum na Sall ngeen xamee ko noonu il faut aussi parfois boo tollee benn jamono toll fenn ay erreur waratu la yenn yi waratu la da ngay war di leeral journée bi bi ma ko defee daaw yëgu ko après la ko yëg mais dafa woote di sant di gërëm mu ni moom dafay bëgg kuy jël di def ci askan gi askan wi parce que dafa mën toog mu wax benn anecdote mu ni biro yi ñu toog clim yi ñu tiim oto yi dawal du ñu jënd carburant du ñu jënd dara pourtant xaalisu askan bi la kon ñun dañoo war a liggéeyal askan wi ba dee pas askan bi di ñu liggéeyal comme yàlla dafa def ñun ñu nekk foofu ci kaw dañu leen war a ba dee kooku nit ku nite rek mooy xalaat loolu tey boo ni ko woon politique mobilisation damay defal mille t danaan la c' est un million au moins dina leen la dix groupement de femmes ku nekk cent mille nga financé leen ko loolu moo indi fama leget yi ngeen di dégg te jàpp naa ne li ma leen di wax nii lu wér la zone nord gi commencé na ko fi commencé woon na ko fi mais commencé waat na ko fi te incha allah ku ko mérito ku ko yalloo dinañ ñëw jox la ko sama digganteeg Thierno Sall il fallait que ma leeral loolu vraiment man. yàlla dama xër si moom suñ borom tamit xër ko si man xam naa baax li may wax te aussi je n'hésite même pas képp ku mu war a jàppale nga wax ma sa problème dinaa ko wax te bu ko mënee dina ko faj gàmmu gi au delà de li président di yónnee dafa sëkk kilifa yi nekk fii teraanga si lu nit lu ump bari te man mii mu leer man nañ moom bëggul di fësal li muy def man parfois bu ma yónnee sax danaan ma bul ànd ak kenn yow dong demal bu ko wax kenn bu ko wax doomu aadama kon kooku vraiment genre nit ñooñu war nañ di ñaan si askan bi mu kii rem ñu ngi koy remercier tamit si lamp yi mu def si gàmmu gi waa koñ bi ñëpp sant nañ ko loolu moom dama waxoon danaa ko wax si Thierno vraiment ça me tenait à cœur moo tax ma ko ma ko doon wax aussi léegi ñu ñëw si manifestation bi vraiment lii buñ koy def defuñu ko pour Mumbaay defuñu ko pour dara on le fait pour jox xale yi ay leçon pour xale yi di xam fan lañ war a jaar fan lañ war a teg seen tànk société bi dafay yàqu suñu yaay yi suñu papa yi seen papa ku si xëy mi ngi daw dépense kon donc day parfois day baax ñu dajale xale yi di profiter di leen cadrer tey yéen xale yi seen mag yi ngeen gis ñu toog fii ñu taxaw nii ku si nekk mi ngi jàng li tax yéen tey lan ngeen war di wax man dama war a ñee ñi ba bu ma màggee di ko defal xale yi ma gën a tuut tànk boo leen amee esprit boobu rek Sénégal jëm sa kanam te aussi jàpp naa ni tey naa laaj organisatrice yi dañoo war a décorer yenn xale yoo xam ne les meilleurs élèves di quartier te loolu duñ ci jóg te xam naa ne dina am benn motivation bu muy def tey ay xale nga toog ñu motiver ñu ñu primer sa moroom jàpp naa ni boo demee di nga ni man kat damaa bëgg nu ñu def diwmee déwén ñu def ma ko ngeen di xool xale dee xool si seen mag ñi ñuy dem di dikk fi ñu jaar metti na mais dans la vie ngeen di gëm seen bopp ku ku ku am dara dañ laa jàppale mais nit day gëm boppam nit day am waay nit day am kilifa ragal a féete day xañe wërsëg nit ki mënul mënul xaritoog ñëpp loolu nit ku baax du ko ku baax mënul loolu mënul xaritoog ñëpp loolu mënul nekk moo tax nit day am da da ngay gëm sa bopp wane yow fi nga féete nga gëm ko di ci dox bu daggul dikk man ci loolu laa nekk ci laay dox li ñu def nii nag defuñu ko pour dara te si bu ñuy yàlla di may kàttan di ñu suturaal chaque année dinañ jéem a xool nan lañ koy yaatalee dinañ jéem a xool nuñ koy yaatalee ba ñëpp mën see gis seen bopp si aussi bëggoon naa leen ko bëggoon naa leen koo wax je remercie ñii ñi vraiment je les remercie infiniment munu ma munu ma leen a fay vraiment je ne peux pas les payer dañoo bàyyi ñëw nekk ci ànd ñu ci liggéey et aussi gis naa ni am na benn délégation bu fi ñëw délégation bi bu fi ñëw or mi ñu fi ñëwoon ñu fi ñëwoon bari na ñuy ànd ak Thierno Sall am na tamit bari na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak yeneen leader politique yi Thierno chef de cabinet muy Falilou Marane génn mi ngi fi teew mi ngi nii toog moom mooy chef de cabinet Thierno j'espère que war ngeen koo mën a xam boo leen ko gisee gis ngeen ma boo leen ko boo leen ma gisul gis gis ko baax na. tamit boo nga gisee gis ngeen Thierno Alassane Sall parce que Thierno moo ko fal chef de cabinet muy Falil Mariam Diène mi ngi dëkk marché Moussante et aussi am na benn grand man grand rek laa koy wax le grand Abouba l'homme infatigable de Thierno Alassane Sall mi ngi nii vraiment sama grand bu baax la waaw Cité Lamy moo fa ne mi ngi góorgóorlu mi ngi jàppale femmes yi mi ngi jàppale jeunes yi moom ni ngeen koy gisee nii entrepreneur bu mag la waaw entrepreneur bu mag la peut-être man si domaine bi may yëngu moom si la nekk yor si di si liggéey te teewul lu ceernoo yëngatu dafay nekk di di di wàcc si terrain bi di xëy du du du yendal du fanaanal vraiment grand maa ngi lay remercier bu baax merci et aussi Adja Koura Keita femme bi nag moom début bi dañu daan xuloo rek maa ngi moom Koura Keita war ngeen koo xàmmee maa ngi dañ daan laale parce que dañ naan waaw dañoo xaw a naqare deret maa moom. ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ñun ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ak Thierno dant si ràññee ah yéen nag gàcce gaalaama parce que lu maas yëkkati rek yéen a gis ñoo leen koy sant di leen ko gërëmee tamit parce que kii nga xamante ni moo tax ma xool ndax résultat yi mi ngi suivre nga nemmeeku ki nga xamante ni moo koy jàngal. bu lay gis chaque jour dana xam ni yow mii day farlu nga sa doom bu ko defee dana gën a neex boppam moom tamit kon suivi boobu du école rek même si kër gi dana war a nekk di suivre xale yi parce que njàng ma école rek doyul kër gi tamit dañu war di suivre xale yi loolu damay ñaax ñi nga xamante ni ñooy la jeunesse de Thierno plus particulièrement la jeunesse yi nga xamante ni dans le cadre général seeni rakk da leen war di suivre da ngeen war a organiser wu dans les xale yi bu ñu wàccee au lieu ñuy dem di yi passer tout leur temps à xamante ni yéen leen fee mag ngeen nekk ay étudiant ngeen organiser wu wut benn local guddi gi ngeen encadré xale yi ba 10 sax ñu dem tëddi parce que yenn xale yi peut-être seen waajur jànguñu xamuñu aani be jàngal rek lañu si mën yéen nga xamante ni yéen leen fee mag yéen a war a assurer loolu nga xamante ni moom mooy suivi xale yi si kër kon maas ñu lay sant bu fekkee ni da nga organiser lu mel une émulation positive kon du def dul di la sant c'est pour montrer la voie aux enfants parce que xëy na encadré ba nga agsi fi nga agsi yow it tu es redevable au quartier moo tax nga def nii yàlla taxawaay bi yàgg lépp loo si def rek yàlla gis l'exemple que vous avez donné ñu suivre la donc lay sant di la gërëm di tamit ñëpp nga xamante ni Thierno moo leen